Jean Baptiste Benja adduna wërngal këpp yëpp di ko wooye l'international Benja le grand féticheur kii mooy borom Nigéria Jean Benja man maa ko tuddee le messie ci wàllum seet wala ci wàllum ñaan Baptiste Benja moo jàkkaarloog le président Macky Sall ne ko bul dem troisième mandat boo demee troisième mandat dinañ la daan te ki lay mu nga ca kaso ga Baptiste Benja ne ma li xam lool moo ci gën a tuuti yow mi nga xamante ni da ngay jouer Paris foot bu la neexee aalamiina ndaxte nag dama lay jox ay score exact te dara du ko dindi Batistama Benyanema Ligue des champions Premier League Bundesliga la Serie A championnat yëpp Batistama Benyanema boo ko weddee match Real Madrid bi ak Bayern léegi ma jox la score bi léegi du ko dindi listixaar moom man maa ko ciy woowee le Messi ndaxte nag da nga koy woo jox ko sa tur jox ko ak sa aas mu wax la loo xamante ni bëgg nga ko xam sa bopp nekk Espagne italiano États-Unis d'Amérique Canada Angleterre déposé woon say papier amagoo ay réponse Benja nee ma woo ma léegi dans deux jours ñaari fan laay appal ñu wala te kenn du ko dindi ci wàllum visa moom képp ku amatul visa yow neex ndaxte nag Benja na ma su ma la seetalee ba wax le ba ngay déposé moom boo demee tampon bi moom par force lay doon bii moo nar a andi embouteillage ci dëkk bi la ndaxte nag Benja nee na ma infidélité laa nar a jëlee ci réew mi ma ne ko lan mu ne ma infidélité maa la wax lii am sa jëkkër doon jaxle lool sa jëkkër di cuuj di jàpp benjaan ma woo ma léegi ma defal ko noob goo xamante ni day toog ca pooj yi loo ko wax loolu lay def benjaan mi yéex naa ñëw ci dama ne xale yu jigéen yi yéen ñi nga xamante ni seen i jëkkër dañ leen sonaloon lool dawal nga seet ci noob moom waa États-Unis nangul nañu ko waa Angleterre nangul nañu ko waa Espagne nangul nañu ko nag Nigéria ga mu moom dañ na ko gongo sama bacca sama benjaan mi he is the international one because he know the he showed the way. ba testament benjee ma jàppal à partir du maa nga jëm Angleterre bu ma jógee Angleterre maa nga jëm États-Unis d'Amérique bu ma jógee États-Unis maa nga ñëw France bu ma jógee France maa ngi ñëw Italiano bu ma jógee Italiano damay dellu Nigéria noppalu ba noppi ñëwaat fii Sénégal kon nag yow mi bëgg ay visa yow mi bëgg listixaar yow mi bëgg ay résultats score pari foot 100 dawal gaaw nga seeti Jean Baptiste Benja le grand féticheur Baptiste Benja na ma fekk wala nga woo ma ci 77 ci buur a ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel ak faay mën a ne ñëw ci yéen ci beneen jotaayu xam-xam waaye tey ñu am privilège yu dajeeg fajkat bu extraordinaire bàyyeekoo ci dëkk xam-xam boobu di Nigéria ñu gën ko xamee ci Jean Baptiste Bendian naka jekk sax lii muy def bëgg ko woon waaye bëgg a jëriñ jaami yàlla yi xam ni problème yi bari na ma ñëw fekk ko am waajoo xam ni tànk bu metti daf ko dal ñu sànni woon ko kort tey mu ne ma buur dama bëgg nga ñëw toog xool wala xam naka lay jëflante ak moom ndax lu jàngoro ji sori sori sori ak liñ ko def mystiquement lu mu métti metti metti bu ñëwee man Jean Baptiste Bendia danaa ko dindi ci ni mu gën a gaawee nekk un un guérisseur de haut niveau waaye it yàlla may ko xam-xam gis nga mu ngi noonu dans l'œuvre waaye man li gën a yéeme ci mbir mi mooy gisuma dara ci ay loxoom te teewul tànk ki muy faj mu ngi saxaar allahu akbar li nag mooy karaama dëgg nag lii mooy karaama dëgg moo tax dama naan sëriñ ci souvent nañu wuti xam-xam ndax lii maa ngi koy soog a gis boo xoolee ay loxoom dara newu ci tànkub ki mu tiimit dara newu ci waaye tànk baa ngi saxaar loolu nag di lu di lu di lu di doy waar donc yow mi nga xamante ne que yaa may seetaan ci ay aajo ak say soxla na nga jël numéro bi woo guérisseur bu mag bi di Jean Baptiste Bendia gis nga ba tey mu ngi continuer ca la mu doon def mooy di diw tànki di saxaar g tey waaru de waaw lu mel ni musuma ko gis sincèrement parler lu mel ni musuma ko gis wax tëgg yàlla lu mel ni musuma ko gis mu ngi noonu te waa ji bi mu ñëw fii ci kër gi dañ ko jàppoo mënul woon doxal boppam waaye gis nga tànk yi mu ngi ko mën a yëkkatil boppam te mënu ko woon ci njalbeen gi Euh, gis nga ba tey sëriñ bi ci ay démonstration gis nga tànk na ndox sotti ci këll gi lan la bëgg a def nag ak cangat gi ci lu muy dox neew na ma nag buur sànq cangatu xaalis la cangat la goo xam ni lu sa yaram naqari naqari naqari loo umu umu umu ak loo tëju tëju tëju ku ko mos boo ñëwee fii man Jean Baptiste Beñaar su ma la ko sangatee ku am nga am ku amul nga am mu ngi noonu gis nga sunguf si di di sunguf boo xam ni sëriñ bi gis nga ndox mi ak sunguf si ci biir leget bi teewul mu ngay tàkk mu ngay tàkk effectivement te nee na mu buur nii ma mel ci xam-xam bi noonu laa mel ci wutum kayit noonu laa mel ci jigéen ju taxaw noonu laa mel ci jigéen ju bëgg boroom kër noonu laa mel ci yow mi nga xam ne déposé nga visa xaar ba sonn gisoo dara moo xam nga nekk Angleterre moo xam nga nekk Germany moo xam nga nekk Suède moo xam foo mën a ne man bés bu ma la sangatee buur mu ngi noonu gis nga ndox mi mu jël sotti sunguf ci kaw taal ko kon dama wax ni mbokk mi yow may seen Jean Baptiste Bendian mu ngi noonu boroom xam-xam la walliw yàlla la waaye ku yore xam-xam bu leer la bu leer bu leer ndax li mu yor du ay caaxaan nga ne buur sama ruq laa nekkoon di def li may def waaye damaa xam nit ñi lañ yoroon def nañ ko ci sëriñ si ba mu jeex jeexal nañu tàkk yoratuñu dara ci tey nga gis suba nga gis ginnaaw suba nga gis waaye moom bés boo jëflanteeg moom jooni jooni la soxla si da koy indi léegi ñu faj ko léegi mu ngi noonu la grand maître guérisseur Jean Baptiste Bendian si xam naa defloon nañ ko lu mu buggul woon waaye dañ koy bàyyi rek mu yegg li liggéeyam ndax ñi nekk ci biti di ko xaar vraiment bari na yow mi ko saan nag du fi yàgg du yàgg Sénégal fukki fan fukki fan ak ñaar bu ko fi defee day dellu ci Nigéria kon se ñu jox gars yi dig daje rek ci beneen jotaay xam-xam sur bii Promedia Jean Baptiste Mabendia adduna wërngal këpp yëpp di ko wooye l'international Bendia le grand féticheur kii mooy borom Nigéria Jean Bendia man maa ko tuddee le messie ci wàllum seet wala ci wàllum ñaan Baptiste Mabendia moo jàkkaarloog le président Macky Sall ne bul dem troisième mandat boo demee troisième mandat dinañ la daan të ki lay daal mu nga ca kaso ga Baptiste Mabendia ne ma li ma xam loolu moo ci gën tuuti yow mi nga xamante ni da ngay jouer Paris foot neexee nal aalami la ndaxte nag dama lay jox ay score exact te ko dindi Batistama Benyanema Ligue des champions Bundesliga la Serie A championnat yëpp Batistama Benyanema boo ko weddee match Real Madrid bi ak Bayern Paris saint ak Dortmund woo léegi ma jox la score bi léegi te dara du ko dindi liste xaar man maa ko ciy woowee le Messi ndaxte nag da nga koy woo jox tur jox ko sant ak sa aas mu la lépp loo xamante ni bëgg nga ko xam sa mi nekk Espagne italiano États-Unis d'Amérique Canada Angleterre déposé woon say papier amago ay réponse Benja nee ma woo ma léegi dans deux jours ñaari fan laay appel ñu wala te kenn du ko dindi ci wàllum visa moom képp ku ci amatul visa yow la neex ndaxte nag Benja nee na ma su ma la ba wax le jour ba déposé moom boo demee temps boobu moom par force lay doon bii moo nar a andi embouteillage ci dëkk bi la ndaxte nag Benja ma infidélité laa nar a ci réew mi ko lan mu ma infidélité maa la wax lii am sa doon jaxle lool sa jëkkër di cuuj di jàpp benjaan nee na ma woo ma léegi ma defal ko noob goo xamante ni day toog ca pooy yi loo ko wax loolu lay def benjaan mi yéex naa ñëw mi de dama ne xale yu jigéen yi yéen ñi nga xamante ni i jëkkër dañ leen sonaloon lool dawal nga seeti benjaan noob moom waa états nangul nañu ko waa Angleterre nangul nañu ko waa Espagne ga mu jógee moom dañ na ko gongo sans bates sama benjaan mi he is da international one because he know the way he go jàppal à partir du 25 maa a jëm Angleterre bu ma jógee Angleterre maa nga jëm États-Unis d'Amérique bu ma jógee États-Unis maa ngi ñëw France bu ma jógee France maa ngi ñëw Italiano bu ma jógee Italiano damay dellu Nigéria noppalu ba noppi ñëwaat fii Sénégal kon nag yow mi bëgg ay visa yow mi bëgg listixaar yow mi bëgg ay résultat score pari foot 100 pour cent dama ni dawal gaaw nga seeti Jean Baptistama Bendia le grand féticheur Baptistama Bendia na ma fekk ma point 1 wala nga woo ma ci 77 526 28 Jean Baptistama mi daal bu daal xaw ma fu